jamaat ba mooy mooy mooy ba tey rek euh, bàcc ya ba mu mel na mu war a mel nga boole ko def ko ba mu ne ba mu ba mu ba mu séparé waaye xataa ba mu demee sax ba dara usul nga ne dama ko bëgg a xolli nag léegi xott yi laa bëgg a ak kemb bi machine a jamaat la muy machine xolli yi ñëw dindi ko nga ne dama koo bëgg a jamaat a machine dege bi ñëw bu ne da nga koo bëgg def noflaay machine a di jamaat tamit moo ko def noflaay da nga damay togg kaw diiri bi moo ñëw jamaat la ci lañ koy toggee ba mel na mu war a mel ngay def passé yaa xam yow si si si si ba lépp pare waaye it ba pare ba lépp mel na mu war a mel jamaat bi ci laa def kaay ma nag léegi la ma doon tax di ko jëkkal lépp mooy lekk rek nga jël ko dugal moom nga ko doon dimbali ko pour mën koo lekk kon foo fekk jamaat mooy mooy am na baat noonu ma wax la tamit ca ca gerte ga noonu la walla balee ca dugub ja jamaata ñëw euh, poj ji ko teqale maanaam xetax ba ak ak dugub ja ba mu paree tamit jamaata ñëw euh, soq ko benn ci kuur ak gën wala mu nekk machine ba mu paree tamit gis nga ko saako yañ ko denc sax ay ay ay jamaat la waaye tamit moo ko wal waaye jamaata ko ñëw suusal ko ba mu paree tamit moom ci lañ koy toggee ba mu nekk lam nekk ba ca matt ma sax ma koy togg di ko xamu jamaat la kon mm, jamaat mooy surga naba yàlla na ko demal nga takkaayu takk sa ndigg dem liggéeyal jamaat loolu laa loolu laa yow jamaat demal nga takk sa ndigg leen liggéeyal nabaat loolu laa la fi indi mu koy liggéeyal ba mission bi yëpp réussir mu jëlaat nga ne jamaat moo doon surgaam mu ne ko yow tamit kaay nga dem liggéeyal gis manam surgaam ba mooy nabaat moo tax nabaat foo ko fekk rek tabaarakalaaw xayawaan lay gisoo ko sa wàññi wi duñ ko liggéeyee ba mu pare xayawaan bay ñëw fas wi xar ba bëy ñëw lekk ko ñax mi ba nga ko defee mu nekk ci àll bi bañ pare dañ koo sar sarto ko ba mu nekk xayawaan ñëw tamit jëfandikoo ko foo fekk nabaat daal moom moo nekk surgaam xayawaan moom nekk lay liggéey luñ liggéey tamit ci moom lay gel waaye nangu jël xayawaan moomu nag di xar yeeg bëy yeeg fas yeeg nag yi ne yéen dem leen ngeen nekk surgaam insaan moo gis nga nga ñen nekk nekk xale bu góor bu ndaw fekk ponkalam mbaam ba ñetti mbaam nga takkate leen di leen dóor yooyu sa suuka nga jël ponkalam girim nim nim la ëppee jëmu nga ëpp ko xet ne ñoom kas ca kawam boole ko yore saw yet di ko tak takk ko mu lay yóbbu foo bëgg a dem nga dem boo defee tamit nga jël say say say say tak takk leen jël say fas takk leen yenn xayawaan ya sax yàlla defa ne say surga lañ bu la neexee reen gi nga jël sa ganaar gi rendi lekk nga jël xar mi rendi lekk nga jël um bëy bi rendi lekk nga jël yeneen rabi àll yi ci àll bi sikóor yaa ngi ci aju rendi lekk coxeer ya yeneen yi nga xam ne kenn du ko lekk nga jëfan jëfandikoo seen doole yi loo ca bëgg a def yenn ya sa doo ca yem da ngay boole jëfandikoo seen doole ya rabt seen meew ma di ko naan doo ca yem jël seen yàpp woo lekk ko muy xar yeeg bëy yeeg ah, maanaam nag yi nag yi yaa ngay rabt meew ma boole ko jëfandikoo seen doole ñu leen takk ñi lay liggéeyal kon foo fekk xayawaan insaan ko tax surgaam la moom lay liggéeyal waaye yàlla teral doomu aadama la mu ne yow insaan mii yow benn njaati gi rek nga xam mooy sa ndax yow wala xadd karam naa ba ni aadama tax yow bu la kenn tax a di ko yàlla demal nga liggéeyal yàlla rek yow bul liggéeyal kenn bul liggéeyal nabaat bul liggéeyal jamaat bul liggéeyal xayawaan yow daal kenn rek nga war a takk sa ndigg léegal ko mooy yàlla mi nga xam ne mooy rabbul izzati wal jabarut kooku moom mu naa umiru illa li yaabudullah muxlisina lahu diina hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakata wa dalika diinul qayima kooku mooy nit yàlla rek la la la war a takkaayu di ko liggéey du ko defu rek perte na yow nag euh, léegi-léegi nag boo demee ca suratul xajji mooy ne timi tamit dafay wax ne yow yow doomu aadama liy sa rol ci war maa liggéeyal jaamoo ma sujjootal ma soo ko deful jamaat ma de nekkoon di surgaam nabaat dem di ma sujjootal jant bi jamaat la dem sujjootal ma weer wi jamaat la dem di ma sujjootal te moo ci mënoo dara mënoo ci dara laa tasjudu li shamsi wala lil qamari wasjudu lillazi xalaqahunna in kuntum iyyaahu ta'buduun waaye tamit jant bi ci boppam mi waaye tamit mu ne boo jëlee. muy euh, nabaat moomu nga xamante mooy surgaab xayawaan di ko liggéeyal yow boo ma bañee liggéeyal yow nit ki nabaat subbeeku dem di ma liggéeyal mooy ne ja euh, maanaam garab yi gaj yi peer yi gàncax yi amul lu gis lu yàlla wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiihahum waaye soo ma bañee sujjootal yow nit ki bañ ma jaam xayawaan nii nekkoon di ci surga wan la gannaaw fële jàllale ko tamit ñëw di ma di ma jaam moo tax kon doomu aadama daal bu nangoo jaamu yàlla su ko defee lii yëpp moo wax tàggatu ci gannaaw di ko topp su ko bañee nag yooyu yëpp wane gannaaw moo tax xam naa ne tey mooy yàlla gi di bëree tax moom mu xayawaan bi nga xam ne mënul toujours nga xayawaan yu mu ngi fas yi bañ nañ li ñu jar léegi baax na mënu ko jënd benn fas sept cent mille benn fas un million benn fas huit cent ah nag yi bañ nañ boo ñu am alal rek ñoo mën a bàyyee nag yi léegi giléem yi waxi noonu daanaka léegi mbaam yi rek a fi des kër goo dem dëkk boo dëgmal ñeenti mbaam ak ñetti mbaam xale yu ndaw yu bëri di leen takk damay ragal nag buñ continuer ci lànkal yàlla mbaam yi dinañ lànk su boobaa nag xaw ma xar yi lañuy takk ak bëy dafa fu jëm dafa fu laa bëri jëm fu ne kon buñ nangulee yàlla rek lépp nangul ñu gis nga bañ bañalee yàlla tamit ci la ci la suuf si bañ jamaat la ngay man too dootuma leen nangu la ti loo ma dénk moo war ko saxal du sax wala bu saxee sore wala bu soree tamit du bu jegee eh, du fees du mel nii doo ko jëriñoo suuf si bañ ñu ne ko dañ la neexal pour def engrais neexal ba sonn mu bañ ñu ne ko dañ la neexal def ci suqeem fas meeg nangam ak nangam mu bañ kon fas yi bañ nañ waaye tamit di xayawaan yi eh, nag yi bañ nañ bokk ci xayawaan yi waaye tamit jamaat bañ na muy suuf seeg yeneen ñetti xaju ba ca yi ñu war a tàggatal ak sax dafa bañ ci jamaat la ndax léegi machine booy bayee jafe na ñenn ñi dañuy dem luye ji ñenn ñi dañuy dem mujj tay ji fa ñuy mujj gis na ko waaye gis nga ko tamit xayawaan yi bañ nañ jamaat bañ nañ na nabaat tamit mu gën a ñu bañaat mooy gàncax gi nam daan mel ci naat nam daan mel ci yaatu nam daan mel tabaarakallaahu ci mel ni nam daan mel ci barke lépp dàq na su ko defee moo tax lu toll rëy rëy daal di may wax toujours rek euh, boo ko xeer boo ko xollee muy laxee neen nga jaay ko ci loxoy neen laxee neen nag loxoy neen nag daanaka mën na yore kenn kon daal sekk rek àdduna muy moom maa maa ngi koy dénk jabar yi Modou Modou yi maa ngi koy dénk képp koo xam ne yaa ngi ci néegam sëy sa jëkkëram fekk nekkul fi maa ngi koy dénk bépp bépp doom ci waajuram maa ngi koy dénk di ko dénk sama bopp bépp waajur ci doomam maa ngi koy dénk bépp jàngalekat ci ay élève am maa ngi koy dénk bépp ilimaan ci ay mango moom ci jàkka ja maa ngi koy dénk bépp chef de entreprise ci entreprise am ba maa ngi koy dénk bépp borom dëkk ci waa dëkkam ba maa ngi koy dénk préfet ah, ci ci sous ba maa ngi koy dénk gouverneur ak ci waa gouvernance ba maa ngi koy dénk maire bi ak waa mairie ba maa ngi koy dénk ministre bi ak ca ministère am ba xataa maa ngi koy dénk président ak mboolem ñi nga xam ne ak population bi maanaam daal ku dul muñ doo jiite kenn ku dul muñ doo jiite daaw ku dul muñ doo defar dara ku muñ sa lépp dana mujj yàqu waaye daal buñ jëlee muñ def ko muy ngànnaay yoo xam ne duñ teqali ko moom rek suñu àdduna jàkk suñu àllaaxira jàkk fiñ bëgg a yegg yëpp ñu yegg fa kon lii moo doon yaay wala na amanu si loolu ñu njëkk ji mooy yaa yàlla yàlla sant ñu ko ne yàlla san saino bis sabri wa salaati inna laa maa sabirin yaa ayyuha allazina amanu staino bis salaati bis sabri wa salaati inna laa maa sabirin yéen jaami yàlla yi da ngeen dimbandikoo ñaar ci seen àdduna su ngeen bëggee jàpp mooy julli ak muñ muy yaa ayyuha allazina amanu staino bis sabri loolu nag dafa ñoo sant jaamu yàlla biir ak bu biti jaamu yàlla ak biir ba ci ëpp doole mooy muñ jaamu yàlla ak biti ba ci ëpp doole mooy julli mën a jël leen ñaar yii nag ngeen def ko muy seen gànnaay te xam ne man yàlla ànd naag mooy muñ ña waaye bu ne ànd naag mooy muñ ña tamit ànd naag mooy julli ña ndax ku muñut doo julli ànd naag mooy xoor ña ku muñut doo xoor ànd naag mooy joxe asaka ya ku muñut neex neexu alal doo joxe asaka ànd naag alxuraan ya ku muñut doo jàng alxuraan ànd naag njaboot yore kër ku muñut doo yore kër ànd naag jigéen ñay sëy ku muñut doo sëy ànd naag jëkkër yi ndax ku muñut doo doo doo doo dégg nijaay ba yow ma ya ndax ku muñul dégg kon inna laha ma sabirin mbooleem ku xeq ku melokaanu melokaanoo sabru rek yaa ngi yàlla ànd naag yow te ñett kenn mënu koo taxawee lu nga def sabru mooy muñ bëgg la sa borom sant nga def ko ak muñ bëgg la sa borom nga ko ak muñ li nga xam ne yàllaa ko mooñaale ak yow nga boole yooyu yépp kon lii daal mooy ñaareelu yaa ayyuha bi nekk ci alquran suratul baqara ci yaa ayyuha allazina amanu ista'iinu bis sabri inna allaha maa saabiriin xam naa nag bu subaa ci waxtu wi euh, ci ñu waxtaan yi ba ma toppee ma dugg ci ñetteelu yaa ayyuha ji ñu ngi suratul baqara ba tey ci yaa ayyuha allazina amanu kulu min tayyibaati maa razaqnaakum washkuru lillahi in kuntum iyyaahu taabudu mooy yàlla foofu dafa ñuy sant ñuy lekk alal ju lew ndax sa alal bu lewul rek sa jaamu yàlla du mën a nangu say ñaan du mën a nangu waaye loolu nag buñ fi del siaatee lañ koy wax ñu ngi sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi wéttalikoo diina ci kiiw fu ñu di nekk maanaam ci àdduna bi seen xarit seen soppe si Ahmed Tidiane Diop moo nekk ci caméra bi tabaarakallaahu nekk tamit ci numéro whatsapp bi di ko tasaare waxtaan yi di ko tasaare ci groupe bi di ko tasaare ci bi ñoom ñëpp ñu koy rafetlu kon tamit ñu ngi ci ànd yéen rek ñu ngi ñaan rek fu waaye mun nekk na góorgóorlu ba abonné waaye abonnement yi daal lu mu gën a bëri rek tabaarakallah gën a baax ndax dana tax njëriñ li gën laa jege lu ñu dugal nga mën koo jot lu la réeré sa diine foo mën a nekk ci àdduna bi rek mën nga koo jokkoo ak Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Diop danañu ko indi dëgg dal foo mën a nekk comme abonné nga toogal da nga dégg sa laaj kon ñu ngi ñaan fu nit nekk ci àdduna bi rek nañu bokk ñu abonné wu ci diine ji TV te seen télévision boo xam ne Eh, diine rek moo ko tax a jóg ci tontu seen i laaj ak waxtaane ay tomb tomb diine yoo xam ne bu ko dégg rek wala nga seetaan ko da nga ci mën a jëlee ak njëriñ ak ak kon defaloon nañ leen eh, diina ji tv ci di maanaam diina ji diina ji fm kon ci rajo tabaarakallah waaye rajo bi mënul joti fépp ñi koy déglu ca ndukumaan ca Kaffrine ñii di ko déglu tamit ca Kaolack ak la ko wër ba siin ñu ne nag kon nañ leen indilaat diina ji tv ala kulli xaal ci seen télévision bi nga xam ne tamit ñëpp danañ ko mën a jot fu mën a nekk ci àdduna bi waaye alhamdulilah rabbi alamin abonnement yi ñu abonné bëri na ñi nga xam ne tamit ñi ngi koy siiful tabaarakallaahu bëri na waaye lu mu bari bëri rek xet nañ xet nañ ko ndax yàlla lu jëm ci moom loo ko def rek xeeb ko bu ko naw kon na ci ñëpp bokk dugal seen loxo ñi maa ngi leen di sant di leen gërëm yàlla yàlla defal ñu ak taysiir wasalaamu